ay Daouda Diallo di jawdi guñu ñu wal karange bi rewmi mi moom mooy ñëw gis nga euh, kilifa yi ñom ñoko dem teru ci ci biti mi nga andante nak ak delegation bu bu bu takku euh, ñu koy gunge mi ngi nonu nak jëm euh, ci fi ci ci ci ci salle bi. ministre de l'intérieur Abdoulaye Daouda jallo mom timit nga xamne mom moom yoré lepp lu jëm ci walu culte mu and ak nga xamne ne di kon Serigne Moustapha Lakram Mbacké do wara dugg nak fi nga xam ne culte rek di. te di daal tàbbi ci biir mhm. lépp lu aju ci wàllu diine ji day daal tàbbi ci biir lim yor waa département bi ma la nga xuus loolu am solo la te tànn gi ñuy tànn ki fii teew ci maanaam hiérarchie bi day am solo ci teewaay bi ak ci jotaay bi gis nañ at mu ministre l'intérieur mooy ñëw mhm. wax nga ko léegi mooy yore intérieur réew mi sécurité bi waaye waaye du jëm ci culture yi itam moo ko yor kon defe naa ne tànn gi itam tànn gu jaar yoon la goo li ma wax léegi rek da ciy feeñ wax ji dana tegginu waaye dana dana itam maanaam maanaawu itam dana am solo am message bu tënk bu jàllale ba noppi it mu teg ko ci teggin. waaw waaw loolu benn trait ki nga xam ne moom moo di ministre de l'intérieur moo di Abdoulaye Daouda Diallo nekk na ministre de l'intérieur boo xam ne waxam bariwul te bu waxee kàddoom da koy woddu teg ko ci ay teggin je pense que lu am solo la en tant que ministre de l'intérieur yore comportement bu mel noonu nga xam ne moom euh, maanaam exemple lay joxe. dëgg la comportement dafa am solo mhm. kilifa nag kilifa moom melawoo melawoo xam ne moom même bu waxut yow sax boo ko xoolee rek da nga am ci moom cofeel dana am lu lu bàyyi ko ci moom xëcc la dafa am solo bu ko defee nag surtout ñoom nag nga xam ne dañuy euh, dañ leen di tànn ngir loola ñuy ay royukaay ci fànn gañ féete comme ni kilifa yi dinañ nekk royukaay ci fànn diine loolu itam defe naa ne am na solo nag mhm. am na solo lool waaw sëñ jàng gi doon dégg léegi moom je <laughs> <laughs> la moom njàngam dañ koy tànn ci cérémonie yu mel nii mhm. parce que mu yi dafa am lu mu laaj dañuy wax ne li kulli maqaamin maqaal lenn place bu ne am na lu fa war a wax ak lu fa war a wone eh, moom macha allah yàlla may na ko buy jàng dina andi maxaarijul xaroof bi ni ko sëñ bi bindee dana ci def kem tolluwaayu kàttanam ba noppi it ñu tànn it maanaam contexte bi xasaay yi mu doon jàng noonu boo ko seetloo mooy xasida yi nga xam ne i ci ëpp sëriñ bi da wone dox bi dox bi mu dox jëm ci géej géej lu mel ne ay yeesa mindi laa indi jeewali boobu mu doon jàng nga xam tudd na ci Conakry tudd ci Garambassa tudd ci Dahomey tudd ci Libreville mhm. wax ci yenn may yi ko yàlla defal bu noppi indi nag lu am solo te mooy nag daraja yi ko yàlla jox ginnaaw bi mu liggéeyee liggéey bu barkeel bii nag ba mu jeex ci loolu nu waxee yooyu naan Cheikh Abdou Khadir Jeylani moom ma gërëm Cheikh Ahmad gërëm na ma Abul Hasan na ma loolu maqaama la daraja la joo xam ne tëbul tëb rek am ko waaye dafa liggéey ba liggéey bi sotti yàlla jox ko moo tax moom itam macha allah ñu koy tànn di ko baax di ko di ko taamu ci cérémonie bi moom dafa mel teew nag xam nga xaside yi Cheikh Bamba mooy message sëñ Tuubaa message bi nga xam ne birid la nga xam ne boo xool dara rax ko sëñ bi fi mu doon fi mu nekk ak li bëgg ñu ñu ñu xool ko ci moom ci xaside yi la ko def te ay ay ay borom xam xam-xam fii teew ay naara ngi fi ñu jàng dégg arab bu baax a ngi fi ñooñu jàllale message boo xam ne bokkul ak wolof yi ñuy làkk noonu ñu di ko dégg mu waxi sëñ Tuubaa ji dëgg-dëgg ñuy gën a xam sëñ Tuubaa loolu it am na solo te loolu lañ ko a tànn. rama ci xasida gi waaw moom euh, euh, euh, am na solo lool def naa ne sax bokk na ci ci ci ci ndigleel sëriñ bi ci ci bisam si bisu màggal gi. ñu ñu ñu ñu jàngal xasa yi di wàcce kaamin berndeel gan yi. loolu loo nga xam te ne am solo waaye dama bëgg dellusiwaat ci taxawaayu ministre de l'intérieur Bamba dëgg la ku ku ku dal la mhm. te bëriwul wax te waxam wax bu dëggu la mm-hmm. te waxam dafa gatt kàddoom du gagne non non kàddoom du gagne dana ko defar ba mu bax te itam dafa def lu am solo fils Touba ci magal 2015 gi mm-hmm. ndax nak junne ak ñeenti téeméeri policier la indi taxi am escadron bu gendarmerie président de la république ñew inaugurer ko kon kaaraange gi mot na ndax sapeur pompier gis na len ñom ñep ñew nañ wax deug yalla def na fi lu am solo ndax ñew na lata magal gi gis na li nga matuwaay yi nga xamanteni mom la président waxon ñu def ko mu ñew xol ndax lépp jaar na yoonam jaarul yoon ba président ñëwee gis nga am na ci mbégte lool kon moom taxawaayam am na solo lool bam waaw président moom ku kontaan ci ministre de l'intérieur ndaxte mën nañu wax ni taalibe la ndax taalibe mooy jëfee ndigal président jox ko li nga xam ne moo di ndigal mu daal di koy jëfee wallaay waaw moom itam am na yéene bu ci ci réew mi ci dëkk bi am ko ci këri diine yëpp macha allah yàlla ko ci yàlla jàppale bu baax rek te taxawu ko ci euh, te it euh, loolu it dëgg la ñoom euh, li leen war lañuy ñuy def parce que nag fu mbooloo di daje mu toll nii itam nag ni nga ko waxee léegi ci wàllu sécurité bi ak fi jamono ji toll contexte actuel bi ñuy dund nii laaj na it nag sécurité yi Cheikh Cheikh wax na ko léegi euh, am na ko jot léegi ci turam wax nañ bu ngeen gisee ñuy def lu mel ne yi ci buntu yi fa porte gi portique bi loolu jubluwuñ ci sonal kenn wala pour mun xataal kenn waaye fi jamono ji toll la di biyee ko laaj ndax kaaraange moom du doy wallaay ñaanuñu yàlla toll ci temps ci temps de guerre waaye nag fi mu toll jamono dafa am solo waajal sa bopp waajal dafa am solo ñëw loolu jëf nañ jëf am solo ci policier yeeg gendarme yeeg sapeur yeeg macha allah wax dëgg yàlla xalaat yi moom mot bamba dañu gis Bass Abdou Khadre waaw mais gis nañu jawriñ gu ñu dénk wàllu cosaan ak caada cosaan ak aada ak ministre conseil Youssou Ndour voilà Mariama voilà ak Ablaye Diouf di maire bu Yoff waaye tamit gu ñu wàllu euh, collectivité locale mais Serigne Bass euh, Abdou Khadre mi ngi génn ci biti taxaw di fas yéene teeru ku baax ki ngi ne li ci des bareetul sëñ Cheikh Sidi Makhtar yegg si waaw moom la ñuy xaar mooy kilifa gi moom la xaar euh, moom bu egsee rek cérémonie bi daal di door mu doon loo nga xamante ne rek ñëpp Sénégal gi yëpp jullit yàlla yëpp ñoo ngi toog di xaar li nga xamante ne rek mooy kaddu yi fas yéene génn ci ki nga xamante mooy ndawal buur muy euh, Abdoulaye Daouda Diallo ak it tontu xalif euh, général des des des ministre de la pêche tamit. Euh, ah, Omar Gueye mi ngi fi voilà mi ngi fi waaw kon ah. délégation bi moom egsi na. <laughs> waaw sëñ Fallou Bousso nga ñu dellu si waat ci taxawaayu Cheikh Bass Abdou Khadre Mbacké porte parole xalif bi. je pense que euh, ndam la ci yoonu murid ndam la ci jullit yëpp boo gisee ni nga xam ne taxawoo na ko yoonu murid taxawoo ko jullit yëpp je pense que ni ngi def liggéey bu liggéey bu am solo am solo sëñ Fallou Bousso ngeen bokk ak moom liggéey bi nekk ci commission bi di ànd moom fu nekk dëgg la dëgg waaw ñaanal rek yàlla dëgëral ko bu baax te moom itam yàggal ko ni ma ñaanal Cheikh Mountakha léegi rek yàggal ko ci ginnaaw magam kilifaam hmm. ay magam ak kilifaam ndax moom it mission bi ñu ko jox mi ngi koy rafetal yaatal na ko surtout loolu nag yaatal waaw yaatal na ko bu baax a baax. déggoog ñëpp déggoog ñëpp it ba noppi it wàcce boppam itam. wàcce boppam xeebul it xalaatu kenn. Mhm. kenn ku ne da lay xalaat ci nangam lan nga ci gis. Mhm. te loo ko ci waxee loolu lay jëf. Mhm. te it ngi diisoo. Cheikh Moustapha woy juróom bu baax ba daa wax ne. du ma ne du ma juum de. waaye bis bu ma juumee mbooloo juum. ndax damay diisoo mbooloo. voilà <laughs> la lu dafa mel euh, ku tedd ki yegsi ma bàyyi la nga commenté image yi. xalif général des Mourides Serigne Sidi Mokhtar Mbacké moom mooy egg si noonu euh, mooy waaj a wàcc ci ci oto bi ñu koy xalal yoon noonu parce que nag euh, gis nga li doon wax léegi ci kaaraange gi euh, Bamba gis nga macha allah ak policiers yi ngi nii ñoo koy ñoo koy fas yéene nag voilà gis nga ñooy xal yoon bi. ngir waaw ñu mën a wàcc jàkkaarloog Serigne Bass Serigne Cheikh Thioro ñu ne nga gis ne ci ci buntu oto bi.

ni tey ñu bari mën nañ jànge ci <laughs> kilifa goo xam ne mm. toll na fii ba pare mm. am tekkaaye googu ak dal googu waaw ndax benn yoon la wax dëgg la waaw day mel ne def ñuy fàttali way jur bu baax Cheikh Salih ci ni mu daan doxe euh, mooy ni xam nga euh, tekkaaral sëñ euh, Bamba léeg-léeg mu tekki wax léeg-léeg tekkaaral dana taxaw taxawaayu wax jamono day toll foo xam ne léeg-léeg ci kilifa mu dal dal gi day day wecc lépp ndax fi ne xam nga jamono wax lañ toll fi ne sama classe ni waxtu bu ne ñu ngi ci média bi di wax kii waaye gis nga ne moom ragal yàlla gi ak màggaayu jëmmi suñ borom ji ne ci xolam boof ci xolam loolu lay yëg ba fu mu toll da koy bàyyi xel day bàyyi xel borom. mais mais sëriñ bi. tekkaaral googu est-ce que yaakaaroo dafa dafa bëgg wax ne. nit ñi nañu wàññi wax bi te jublu ci liggéey bi. da koy wax sax wax na ko de loolu koy wax na ko sax. Mhm. wax na ko ci ci ñi mu ko war a wax dëgg-dëgg ndax moom day wax ne ñi ma sañ a digal dama leen di digal. ñu njaboot murid yeeg njabootu sëñ Tuubaa gi ñi dama leen di laaya biir bokk jullit dama leen di laaya biir te loolu loolu loolu la jaamu yàlla gi day soññee sax naan nañ fonk dem ci ci ci maanaam jumaa yi ak jàkka yi di ko fees di julli liggéey bi nañ dem ca tool yi bàyyi te moytu yenn loolu moom wax na ko ba ay yoon yoon te loolu itam nag wax dëgg moom la Sëñ Tuubaa daa wax moom la euh, bàyyam yu baax yi mu wutu daan wax magam ju baax yi servat la loolu daan wax kon dafa defe naa moom Euh, wàccul régal ba daal ma nga ca yoon wa macha allah te yàlla na ko yàlla yàggal suñu karam rek naal yi mu naal fii fi Touba naal ko Ndakaaru yëpp itam nag yàlla ko yàlla may ak région yi nekk Sénégal yëpp voilà gis nañu Bamba maître Sidiki Kaba euh, ñu dénk ko wàllub euh, justice gouverneur ah, bu Diourbel tamit bu Diourbel aussi gouverneur bu Diourbel tamit mi yegsi na mu nekkoon tamit sa dëkk Ndar jaar na <laughs> bu Diourbel liggéeykat la jàmbaar la. fi mu nekk nii nag ñu ngi ci daanaka mise en place bi jeex na. ci mm. nga xam ne kon ñu ngi xaar sëriñ bi moom mooy ñëw euh, noonu. bi moom mooy ñëw noonu ngir mu mën a mm. yegg si. Mm. daal di kon euh, daanaka bu yegsee rek gis nga ko ñu ngi koy di ko xalal bu yegsee rek kon euh, cérémonie officielle bi mën a tàmbali ndax du yàgg nag cérémonie officielle bi ñaari discours la. Mm-hmm. discours ki nga xam ne moom di ministre bi ak discours xalif général bi te Cheikh Bass di ko jottali. waaw waaw après ñu ñaanal mbooloo mi. waaw xam naa xëy na def léeg jiital maanaam de bienvenue bi nga xam ne. délégation yi gan yi ak ndim leen euh, Cheikh Sidi Mokhtar ka daana ko faral di def mu am am solo lool nag ñu xam it ne ñëpp a ngi fi ñëpp a fi teew te teewaay bi itam nag dafa am lu mu wane li ma waxoon léegi rek mooy jëmmal na bokk lislaam gi jëmmal na itam bokk ak gi li ngeen wax léegi ñaar yëpp a ngi ci waaw wane na ne lislaam bépp benn la mm-hmm. wane na na wute itam ñoo war a bokk benn bëgg-bëgg bi te mooy intérêt réew mi mm-hmm. loolu rek mën na war a ñor ndax ñoo bokk mm-hmm. moom bi muy woote ñëpp la woo moo tax ñëpp a wuy si nag ñëpp a wuy si moo tax loolu itam dafa mat a bàyyi opposition bi. Ah. nga ko waxee ah. maître Souleymane Ndéné Ndiaye seen nañ ko fi léegi donc euh, te kilifa yi nga xamante ñoo nekk ci njabootu diine yëpp teew nañu fi donc euh, xam nga ba jotaay yu mel ni lu am solo la. Mm-hmm. jotaay yu mel ni lu am solo dafa boole ay nit. ndax ñu gëj ñu gëj ñi nga xam ne gëj nañ daje. Mm. te bés yi daf leen a dajale. Mm. Euh, ndax rawatina ci wàllu diine ji. dëgg la ay nit foo xam ne diina dajale leen fa dina ci mën a jëlee lu bari. la te ni indi loolu am solo nga wax noonu maanaam boo xoolee eh, ñetti fan yi ñu fiy def lu mu néew néew danañu jokkaat seenu bokk jokk goo xam ne bu dul lu lu mel ne lii ci Touba ñaare du yomb waaw dafa ko tedd mhm. bu dul loolu rek bu dul loolu du yomb gise gi daje gi waxtaan gi ak jokkoo gi day tax cofeel cofeel ndax dañu wax ne maanaam ziyaara day dolli cofeel mu yàgg nga namm sa mbokk dem seeti ko ngir yàlla ndax tax cofeel gi doxoon sa diggante yokk rawatina ñoo xam ne nag ñoo bokk loo xam ne mënuñu ko sédd suñ suñ suñu bilaat daa wax ne li liñ bokk mooy réew mi ak diine ji xam nga réew mi moom ñëpp a ci biir maanaam chrétien beeg animiste beeg ñëpp ñu ci biir réew mi bok en tant que sénégalais nga rek ño bok Sénégal waye ño bok l'islam bi itam ko xit ku dib dit gennu ci te ñoo ngi la daan waxal mu dafay sa a wax nak ñi nga xamne ne nag ñoo yaakaar Sëñ Tuubaa nag laaxe ngi dañuy tabbi ci bir ñi ñu bokkal réew bokk ñom l'islam bi da ah. am ci nga xamne modi seigne di Ablaye je pense que mi ngi ñu deglu limi wax touti ñepp ñaanal nañ la l'islam bi ñaanal na la jur gi ñaanal na la bismillah Cheikh Sidi Makhtar Ka da ngeen ngeen cee toog. waaw da ngeen cee toog. sëñ Abdoulaye Ka ah, kon sëñ Sidi Makhtar Ka waaw war a euh, jël kàddu nag présenté yi nga xam ne moom moo di délégation yi jógee euh, ci bitim réew ak tamit fii ci biir réew mi teew fii nga xam ne moom moo di ci cérémonie officielle bi. am na euh, ci solo gis nga ko mbooloo mi nin toogee nii sëñ Cheikh Sidi Makhtar a gi ku tedd ki tey jàkkaarloog ñi nga xam ne ñoom ñoo di kon askan wi vraiment ñu pense que ñu déglu sëñ Sidi Makhtar Ka. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من اختاره من عباده واصطفى وعلى آله وصحبه وخديمه ومن سلك نهجهم واقتفى صاحب الفضيلة الشيخ سيد المختار أطال الله بقاءكم ومتعكم بالصحة والعافية أيها الحفل الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد إن الله سبحانه وتعالى يأمر بأداء واجب الشكر ويمقت كفر النعمة ونكران الجميل فقال عز من قائل إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ونعم الله على عباده لا تعد ولا تحصى ورغم ذلك فإن كثيرا من الناس بل إن أكثرهم حسب الخطاب القرآني ينسون جميله وينكرون إحسانه قال تعالى وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وقد قطع الله بالمزيد للشاكر ولم يستثني واستثنى في خمسه كما يقول حجة الإسلام استثنى في الإغناء فقال وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء وفي وفي الإجابة فقال بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وفي الرزق قال إن الله يرزق من يشاء بغير حساب وفي المغفرة قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وفي التوبة فقال ثم يتوب الله من بعد ذلك من بعد ذلك على من يشاء أما في الشكر فقد قال جل شأنه لئن شكرتم لأزيدنكم بلام التوكيد ونونه الثقيلة والشكر عرفان بالجميل يتمثل في قلب المؤمن محبة وإخلاصا وفي لسانه ذكرا وثناء نعم وفي أعضائه عملا وسلوكا قال الشيخ الخديم هب لي دوام الشكر للجنان بالروح والجسد والجنان شيخ سيد المختار نوغلاي نيو ديلا زيارة ديلا ندوكيل دي ساك نغدي نو دولي نيانال واي نولي نيانال يال نغ في ياغ يال نغ وير bis bi bi mu egsee danga ngaa yëkkati sa kàddu woote bi nga wootee sa bokki bopp ñoo ca jiitu muy njabootu cheikhul xadim kàngami yoon wi ñoo ca jiitu taalibe yi ñoo ca jiitu jullit ñi ñoo ca jiitu wante humanité bépp dañ ko ànd ak yow ñëpp ngi lay sant ci ni nga bennalee diine ji ni nga bennale xeet wi ñëpp a ngi la ñaanal ndax naal yu rey yi nga naal ci jumaa ji ca Masaalikul Jinaan ak université Cheikh Ahmad Bamba ak kër sëriñ Touba yi li nga sémbu ku ci xool dana xam ne li la taalibe yi di jox yaa ngi koy delloowaat Serigne Touba kon yàlla na nga ci am ndam lu kawe sa njort bi nga wootee ñi man ñëpp ñëw nañu lu chef de l'État dikkaloon na boppam bu ca yemoon mu doy waaye mu yebal jëwriñ ji yor biir réew mi muy sadoom Abdoulaye Daouda jàll mu ànd ak mbooloo mu takk moo xam ne bu jëlee kàddu dana leen lim président nag wax na yéeneem ci Touba assainissement bi wax na lim ci def te nee na dana ko dolli ñaari forage yi mu def da ko def ngir liggéeyale ko Serigne Touba yoon yi nee na dana ko dolli ak nag naalu wu wi muy autoroute ila Touba ndax dafa bëgg lépp loo sumb mu ànd ca ak yow ak hôpital boo xam ne dana coûter fukki milliards te nee na Masaalikul Jinaan ca Ndakaaru dana ca def juróom benn milliard kon ñu ngi sàkk na ko ñaanal ba li mu yéene yàlla na ko mottali kon ñëw na parlament bi Moustapha Niass yable na opposition bi ñëpp ñëw nañu PDS ma dëkki ma dëkkee ngi toog Omar Sarr ñëwoon na réew mi idri Seck ñëwoon na Pape Diop délégation sëñ Cheikh mbaki Bara ci la bokk maali Gakou ñëwoon na Cheikh Tidiane Gadio ñëwoon na Cheikh Bamba Sall bu AFP ñëw na Khalifa Sall ñëw na Mouhamadou Lamine Diallo bu tekki ñëw na conseil économique sociale ñëw nañu Tanor Dieng Ousmane ñëw na euh, Ousmane Ngom délégation am ñëw na Imam Mbaye Niang délégation ñëw na Abdoulaye Balde Aliou mbay moo ko fi teewal ak mbooloo kon ñoo ñi nga xam ne ñoo di euh, autorité yi fi teew waaye sëriñ bi Abdoul Ahad ka mii toog ñu ngi lay seereel ne def na ci màggal gi loo xam ne da koo jëfe pas-pas ak yéene ndax dafa am ñaari cër ci bés bi muy dafa am loo ko dénk ba noppi muy taalibe Cheikhul Khadim kon ñi ngi sàkku nga ñaanal ko ba li nga ko yan na ko àggale fu kawe sa njort ñi nga bokkal diine ji waa kër maam alxaaji Malick si ñëw nañu sëriñ moor si ma nga ne toog waa Ndiassane Cheikh bu xalifa ànd ak Moustapha Kunta ak mbooloo waa kër Cheikh Omar Foutiyou Thierno Bachir Thierno Nourou Tall bu Thierno bashir ak Cheikh Tidiane Tall ak mbolo waa ba serigne mohammed sek wa wourama serigne Alpha Ba ak mbolo Wa Medina bay serigne Maki nyas ak mbolo wa Lewna serigne mohammed Arabi ak Cheikh Ahmad Babacar Nyas, ak mbolo Wa Layen, Sina Isa Lay mustarshidun al Alhaji malik mbey mi ngi ni tok wa pir serigne Mansour cisse ak serigne maoudou cisse wa Thiès serigne serigne Ahmadou barou ndiegene njabootam ñëw na sëñ daam ma nga ne toog moo ko jiite waa saanaar ca ndar imaam Samba Diagne di al allaama ñëw na taslima alhaaj xalifa jaabi ñëw na cheikh abdul munim zeyn yebal na délégation famille tafsir moor njuur teew nañu mouhamad Seck euh, njoor njuur moo leen jiite pété warak alhaaji jibri jibril jaay ñëw na alhaaji tijaan ñang ca Saint-Louis sëñ ousmane mbeng ñëw na euh, mbootaayu doomi soxna yi sëñ xabibu saaxo ma nga ne toog Euh, mbooloom imaam yi ak waarekat yi alallaama ahmad daam ndiaye ñëw na guyat cheikh moussa haydara ñëw na sanc buuna cheikh bukunte ñëw na digaan cheikh ibrahima sow teewal fi cheikh maamul aynayni ndànk sëriñ buuna kunta bamba moodi sëriñ mouhamad sall morolan sëriñ jibril tombaan fami ahmad quraysh sëriñ ismaila ba ibadourahman cheikh tidiane fall famille sëriñ Abbas Sall sëriñ Abdoulahi sëriñ Abdoulahi Sall ah, waa Ndeer Naar jullit ñëw na Mouhamad euh, Kounta mi ñëpp xam jaamal Cheikh Ousmane Cissé sëriñ Ndakaaru yebal na Sangone Diagne euh, mbooloom daara yi sëriñ Moustapha Lo ñëw na ànd ak mbooloo Sokone sëriñ Abdoulahi Dem euh, mbooloo mii def yàlla tax sëriñ Jibril Jiiri Sarr moo ko jiite ñëw nañu mbooloom ilimaan yi ak wooteekat yi sëriñ Diaw moo leen jiite. Kédougou sëriñ Babacar Kayta Koyli Alpha sëriñ Moustapha Ba famille maam Matar Kala ca Saloum sëñ Aliou moo leen fi teewal maam Cheikh Jimbira Cheikh Talibou yi Jimbira moo leen fi teewal Cheikh Ismaël Cissé famille ca Fulaadu Mouhamadou Lamine Cissé moo leen fi teewal waa kër maam Rawaan Ngom Cheikh Ibrahim Ngom moo leen fi teewal waa Ngourane sëriñ Makhtar Seck waa Ahlulahi Ndand sëriñ Moustapha Dramé waa kër Alhaji Mbacke Tandiang Baye kër Alhaji Mouhamed Nabi Guèye Alhaji Ahmad Kamara euh, conseil supérieur islamique Ahmed Yan Cham di sa wolere di sa wettal Kër Socé Alhaji Ibrahima Sakho Daare Kokke Serigne Ahmadou Makhtar Lo famille Thierno Kanji Serigne Alhaji Kanji Gert Ardo Serigne Adjuma Ba famille Almami Maba Diakhou Ba Serigne Abdou Wahab Ba Serigne Ismaël Dem yabal na mbooloom ànd ak sàkk ànd sàkk jàmm imam te jiite ko yabal nañ délégation famille Cheikh Mouhamad Salim Sawaane doomam moo ko fi teewal mu Cheikhuna waa bitim réew nag Rwanda seen mufti ñëw na Cheikh Ousmane Mouhamad Aay États-Unis euh, ku ñu wax Mr Samari ñëw na Angleterre Cheikh Saadi Mouhamad Saad ñëw na Mali Cheikh Ibrahim Kaar ñëw na Gabon Robert on avait Alain Nyonu, Côte d'Ivoire Ibrahim Kamara Zakaria Keita Ibrahim Keita ñëw il Koweït yabal une délégation dans ci ñëwaat Dubaï Al Ali Al Hassan Al Ali Belgique Ousmane Turquie euh, euh, monsieur Isaac euh, Zawi Toba Toba Guinée ñëw nañu école turque, Yaou Salim, Selim ñëw Italie dañoo yabal ay médecins ñu ñëw di ambassade du ambassadeur bu Algérie ñëw na ambassadeur bu Égypte teew na ambassadeur bu Îles Comores ñëw na bu Palestine ñëw na Sayid Ahmad Kustaat mi nga xam ne moo sës rëkk ci euh, saaxibal jalal almalik Mouhamad Assadis nasarahullah moo toog ci sawet ñëw na ànd ak délégation waa France seen ambassade yebal nañ mbooloo ligue mondial islamique yebal nañ mbooloo ambassade bu Iran yabal nañ délégation bu Pakistan yabal na délégation jamee daawa islami bu Libye yabal nañ délégation ambassade bu Libye yabal nañ mbooloo ambassade bu Saoudi yabal nañ mbooloo waa émirats arabes unis yabal nañ mbooloo waa anadul alim li shabab islami yabal nañ mboolo wa Sahwa yabal nañ mbooloo Burma di réewum l'islam moo xam ne dañ fay tumurankeel euh, muslimoon ya ñoom itam yabal nañu mbooloo ambassadeur bu Mauritanie teew na Habibullah teew na alaqid bamba wuldu biya teewna ndawul ministère bu intérieur bu bu bu Mauritanie muy ministre Bamadine ñëw na zaawiya Cheikh Mohamad Yadali ñëw nañu alxasaniyuun ñëw nañ zaawiya Cheikh Ahmad Ibn Hassan ñëw na zaawiya Cheikh Baba Tall ñëw na zaawiya Cheikh Baba Wul Hamd ñëw nañu zaawiya Cheikh Sidi bu Cheikh Sidi bu Bourtlimit ñëw nañu al alawiyuun ñëw nañu waa kër Cheikh Maawal Aynayn ñëw nañu واكر شيخ محمد حسن ابن احمد الخديم نيو نانيو واكر شيخ سيدي محمد الميسر نيو نانيو واكر شيخ محمد يحيى ابن بو نيو نانيو الشرفه تكماطين نيو نانيو غرق سين مولو نيو نانيو ديمانيو نيو نانيو اك ابراهيم محمد الحسن ولد الشيخ نيمكو واخ رواندا سين مفتي موتيو ابراهيم امام ابراهيم كايتاري نرحب بالمفتي al akbar Angleterre imaam Qaid Mohammed Sayid muy limaani jumaa ca Angleterre Italie ku ñu wax Alba Flavio di gëstukat di bindkat Côte d'Ivoire ku ñuy wax Bamba Moussa banque yi la ñëw na Mali Cheikh Soufi Bilal ñëw na Koweït docteur Khalaf Douayi Chimri nekkoon député ñëw na Maroc wax naa ko léegi Gabon tam wax naa ko léegi waa Gambie alqaadi Mouhamed Lamine Kane ñëw na ànd ak délégation bu takku Belgique Karimi Hamid ñëw na teewal fi Croix Rouge bu Belgique Brésil yebal nañu mbooloo moo xam ne ca parlement ba la ñu bàyyi ko ñii mooy ñi nga xam teew nañu ci bis bi kon dañu jox kàddu gi Cheikh Mouhamadul hmm? waa Roum de ñëw nañu kon dañu jox kàddu gi Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne mooy jëwriñu sëriñ bi mu sànni ay kàddu ñu jox nag monsieur. Abdoulaye Daouda jàllo mu sànni ci li nga xam ne moom lañu ñu ko yónni lim délégation bi ñu door a jox nag Serigne Mouhamadul Bachir Serigne Bachir nee na nag mi ngi jéggalu kilifa yi diine yi ndax toogal fii ba yàgg jógal toog fii ba yàgg jógal toog fii am na ci te loolu euh, bëgg rek ñëpp yaatu ñëpp toog fa ñu war a toog moo ko waral waaye mi ngi jéggalu kilifa yi diine yi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaw kon euh, gis ngeen ko noonu kii di euh, Cheikh Sidi Mokhtar Ka dalal na lim na ñi nga xam ne moom moo di délégation yi teew fii. waaw lim na délégation yi macha allah délégation yëpp euh, Bamba teew nañu réew yëpp teew nañu léegi nag dañuy xaar suñu. sëñ Mountakha fàtte woon naa jël kàddu moom tamit. sëñ Mountakha moom mooy jël kàddu. wa rahmatullahi taala barakaatu. suñu kilifa. di lépp ak Cheikh Sidil Mokhtar ñoo ngi teewlu ci bis bi ñu jiitu ci mbooloo mi mooy sama sang yu baax yi seen njaboot moo ngi teewlu di jéem a jox bis bi xàqam la ci jiitu nag mooy sant naaw bis bi bisu sant la kon maa ngi ànd ak gii di yeesal sunu santale sëriñ bi di yeesal sunu sunu sunu cant sunu diggante ak di yeesal sunu cant sunu diggante ak yow dëgg la bisu cant la waaye jàpp naa ne itam bisu yeesal jaayante la ñoo ngi yeesal suñu jaayante bu baax a baax sant bu baax ci sa njaboot gi am luñ ci wax lu xam ne rek sëriñ bi fàggul na leen lépp xam nañ ko itam lim leen jëkk a fàggul muy génn ci ñoom àdduna ndax lu yàqu rek addunaa ko yàq waaye alhamdulilah rabbil alamin fàggu na ci ñoom génn ci ñoom adduna te seen dund gi yëpp sëriñ bi rek la kon noo ngi yeesal sunu jaayante jaayante gi rek mooy li ci gën a am solo kon noo ngi noo ngi nii suñ lépp joxe nañ ko noo ngi fi sa kanam di gën a dalal sam xel di la gën a jox suñ lépp te di la déglu loolu rek mooy li ci am solo di nuyu nag kilifa diine yépp seen taxawaay di sant bu baax a baax te nuyu itam kilifa gi nga xam ne moom la président yebal ak ñi mu àndal ñu ngi leen di nuyu bu baax di sant bu baax. Eh, gannaaw loolu itam nag boo ci amee ndigal am na kàddu yu ma bëggoon a leeral rek. boo ci amee ndigal. Euh, loolu moo di euh, di ma am yaqin ab safaan du mën a bàyyi ko fii li euh, seytaane di bari bari ay pexe bu mën a am bunt fii ndax sëñ bi sëñ bi tëñ na fi buntam dafa am ay wax yu yu néew yu ma yu am ci fan yii maa ngi jégalu bu baax ci lañ may tudd di tudd lu niru ay wax maa ngi la koy jégalu di koy jégalu mbooloo mépp ni mu demee. ci saytaane rek la bàyyi ko waaye jógewul fenn xëy na lépp itam lu mu tuuti tuuti dogal dogal baa waaye dama daal teel a ñëw dama gawoon sama bopp na il faut waxtu wu nekk lu ma yéex yéexi ñëw fa la ma nodd gi fekk dii eh, nag maa amoon as ngàllankoor lu ma doon àggale rek sama liggéey ne nag dana fi xaj waaye yàlla def mu faf waxtu bi jege waaye ma wàcc euh, dal di ñëw bi mu ñëwee ba ci yoon bi xam naa ne booba euh, yeexaay bi moo moo andi lépp ndax seen na président di dem loo seenee muy dem te jiituma laa xam ne bu ma àggee coow rek lay doon ak yëngu-yëngu loolu rek laa ci doon bañ ma ne naa wàññi ko te dama ca dimbali itam moo di jumaa ji ma bàyyi ci sama buntu kër ma xam ne foofu laa war a jullee waaye fii nag dama fi jullee si di fi liggéey si ab liggéey rek laa ci jublu bi nga xamee ne ay ay ay sama xel daal dem ci ne bu ma àggee coow rek yëngu lay indi loolu laay bañ kon naa wàññi ko dem jullee ji Daaru Minaan loolu nii rekk la dara dolli ko ci dara dolli ci seytaane moo bari pexe rekk la. jëpp jàpp ne xëy na am na fu mu patoxlu mu bëgg faa jaar waaye nii dong la deme man dama caa sant bu baax a baax a baax a baax ndax loolu mënoon na ma mënoon na ma ne naa ba noppi damay damay damay damay ñëw te kon bu ko defee la ci doon bañ dana ci am bu ma gannaaw jumaa ji itam jumaa ji daara minam boo ko bàyyiwuloon gannaaw kon il faut que ma jéem dem julli ndax ndax warti fi waaye nag suñu borom taw fi xel ma sama xel daal dem ci ne bu ma demee coow rek lay andi bu te man maa wala dikul julli ji fee ci daaru minam ci jàpp ci lu jàpp ne lool waaye Mbacke lii it maa ngi koy seereel bokk jullit yëpp di ko seereel bokki taal bi yëpp di ko seereel kilifa réew mi yëpp ne nii rek la demee lu ñu mën a dégg dara dolli ko ci nii rek la demee sama xel nekkuloon ci lenn loolu yàlla ma dimbali rek ma xalaat ko fi saasi daal di ko jëfee fi dara xaju fi waaye nag iblis dafa bari dafa dafa bari pexe loolu rek la ginnaaw coow li président da ci am yoon loolu président moom man Euh, euh, euh, dafa dëkk ci teral ma ngir sëriñ bi kon waxuma la xam moom waaye ñi mu bokkal réew mi di yëngatu ci biir réew mi bëgg Sénégal jëm kanam ñooñu ñëpp aw yiw rekk laa leen ëmbal ak yéene ju rafet kàddu yooyu rek laa bëggoon a jottali eh, ñoo ngi sant ñëpp ñi fi teew ak ñi bëgg ñëw te teewuñu ñu sant ñëpp di bég lool seen taxawaay seen itte seen pastéef gannaaw loolu eh, mbokki taalibe yi dégg ngeen li ma wax ci jaayante gi rek moo ci yeesa jaayante gi rek moo ci am solo kon nag nañu góorgóorlu bu baax li ñu jaayante eh, na ci joxe sunu bakkan gën a yomb kon li ci lépp buñ ko ak buñ ko yeewee foofu lépp dana yomb sëriñ bi mi ngi leen di fàttali liggéey bu réy bii mu sémbu mu ngi leen koy fàttali nanu jugaat kenn ku ne na jàpp ne defuloon dara na dellu soññ boppam waaj lu mu mën ci liggéey bi mu indi ko liggéey bi yëmul fenn dafa rëy lool wàll yépp eh, liggéeyu sëriñ bi moo ma ngi ko fa wër di liggéey rëy kon war na noo xam ne yan boobu bu suñu boom yeneen itam nun ñii para ko war a eh, ko boppam agale ko yobbu ko ba ko fam ko fam ko beugé lolo di sun jariñ lu rëy ci sunu dund sunu dund tay gi waxuma la nak fa nga xam urno beug dara urno sakku dara urno yëngutu ci dara lepp dan ko wala na wara gor gorlu góorgóorlu ko fofa ndax eh, jaamu yàlla rek nu fi indi àllaaxira nga nuy nekk te lépp fa la nekk lu gën a neex gën a yéeme takk bi rekk fi ñëw waaye lu gën a metti gën a naqari moom it takk bi rekk fi ñëw kon nanu góorgóorlu bu baax gannaaw ba nu sante sëriñ bi doon sant yàlla mi nu boole sëriñ bi ba noppi sant sëriñ bi moom mi nga xam ne lu nu am te yëg ëllëg mooma mun fàggul lépp xalal nu yoon wi teg na ci yoon wa won nu boppam itam mu xam ne fi ñu ko gisee ba fi ñu ko noppee gis ci boroom rekk la nekk nekku fi ci dara yëngutoom yépp lépp ci borom la ko jëmee loolu itam lu nu ñàkk ñàkk solo loolu la nu fi bàyyeel nun la fi bàyyi nu yore ko liggéeyam boobu kon góor góorgóorlu bu baax gën a woon gannaaw sunu bopp gën a gën koo jublu gën a fas yéene sax rek ci yaamu yàlla gi mu bëgg ci nun fas yéene sax dàkk ci liggéeyal ko ci ci lépp lu baax ci wàll yépp sëñ bi maa ngi jégalu jërëjëf kàddu yooyu rek laa bëggoon a jottali mu nekkoon ki nga xam ne Serigne Mountakha Bachir Lama li nga doon wax ak nii ci solo si nga xam ne Serigne Mountakha am na ko. am na solo li si ëpp solo mooy jaayante gi mu wax jaayante dafa ëmb lu bëri. yeesal jaayante yee yeesalal jébbalu gi si la bokk. yeesalal sa ngëm-ngëm sa digganteeg euh, ki nga xamante moom nga gëm te yaakaar ko ci la bokk. Hmm. dëgg la Serigne euh, Mountakha kàddu yi solo lool li ci gën a mooy ni ko soxna ma waxee lim njëkk a tàmbalee mooy sant yàlla. xam na ne bisub cant la kon mi ngi sant yàlla ci biir cant googu mu cant mboolem. rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. xalif général des Mourides Cheikh Sidi Makhtar Mbacké man ak délégation bi ma àndal. te Maître Sidiki Kaba, garde des Sceaux, ministre de la Justice, Madame Maria Massar, ministre de la Femme, Monsieur Oumar Gueye, ministre de la Pêche, ak Abdoulaye Diouf ministre de la bonne de la gouvernance locale ñu avec ak Ndiaye ministre de la culture ak Khadim Bousso ministre de l'intégration Khadim Diop ak Birima Mangala, ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances chargé du budget ak Youssou ministre conseiller du président de la République Madame Mariam Badiane ministre conseiller du président de la République Monsieur Seydou Gueye ministre porte-parole du gouvernement Arona Coumba ministre conseiller ak membre parlement mon honorable député Mustapha Sisselo, vice-président à l'Assemblée nationale honorable député Awenyang Kester, honorable député Moustapha Ndiaye honorable député Fatou Diouf ak membre conseil économique et social nous Garde salle ak oustaz aline Sall ma avec ak gouverneur région de Djourbel muy Mamadou Moustapha Ndaw ak directeur général de l'administration territoriale Léopold Wad ma ànd directeur général de la police inspecteur général Omar Mal ak préfet du département bu Mbacké sous-préfet bu

risque bi nga xam ne xéewalu àdduna ak alaaxira ak alaaxira yu suñu ma borom Tuuba faggul te rey lool loolu nag tax na tey bi àddina bi yépp bàyyi nañu xel bu baax ci bis bi gis nañu ci jotaay bi mboolu mi këru diini yi ak mbootaayu lislaam yu nekk ci biir réew ak yu nag ci bitim réew ak seen kilifa di leen toggal fii waaye gis nañu itam ci jotaay bi ambassadeurs yi ak membre corps diplomatique yu fi toogal seen réew ci bitim réew itam foofa dem tey taalibe yi ñoo ngi ànd ak waa réew mi di màggal bés bi lii lépp nag day màndargal dayu bés bi ak nu mu yittalee àdduna bi yépp day wane ne itam taxawaayu maam boroom Touba ak liggéey bu rëy bu mu liggéey ngir xettalu doomu aadama yépp président santema naa jotali njaalam ci yow sëriñ bi ci suñu mbokk taalibe yu jot faatu fii si yoonu magal Touba bi ñi leen di ñaan rek yalla na borom Touba teew leen ci aljanna señ bi ginnaw lolu président mo ngi lay sant te di la gërëm bu baax ci tuuru bopam ak ci tuuru mbolam askan wi yépp ci sa taxaway ak liggey bu reuy bi ngay def ngir bolé jullit yi ak di saxal jamm di indi dëgg ci askan wi wax na itam ne ñaan ak sarax yi ngeen di digle waxtu yu ne gis nañu bu baax seen njëriñ rawatina nag ci nawetu ren bi li nag tax na moom président de la république son excellence makisal mu ngi sàkku ñépp ànd ñaanal la ci barke bés bi yàlla yàggal fii sa taxawaay si suñu kanam te may la wér ginnaaw lii lépp nag wax na moom président li muy sàkku nga ñaanal ko ci darajay rasulillah moo di yàlla dolli ko moom ak gouvernement am kattan ak xéwal ba lépp lu mu sumb ngir liggéeyal ko réew mi yàlla mottali ko mi ngi sàkku itam nga defal ko ñaan ba liggéey yu mu tàmbali ci Touba ak lu mu yenn def ci dëkk bi lépp te yeesalaat ko fan yi passé ba yokk ci sax tabax fi l'hôpital bu màgg yàlla àggale ko sa kanam waaye la jiitu lépp nag moo da ngeen delluwaat ñaax taalibe yi ak askan wi ngir jàmm sax ci réew mi parce que fu jàmm amul dara foofu mën a am bali li xew bitim réew ci ay musiba ci ay ay yu bari yàlla gën ci ar senegal ndax sëriñ bi kat ñoo ngi la yëgal ne te xam naa ne xam nga ko kuréel yooyu di mbubbu lislaam te di taal ay jàkk di boom ay jullit ak ay doomi aadama ñoo ngi ci réew yi ñu jege lool ñoo ngi dalal naku xelu imam yi ak sëriñ daara yépp di leen fàttali nag képp koo xam ne ci jàngale diine nga nekk ak ci jàngale alxuraan di jiite jàkk ci anam ni ko lislaam santaane président dina taxaw sa wet gën la kattanal gën la jàppal gën la dooleel incha allahu rabbi balaa may pare nga may ma sëriñ bi mu mottali sumay kaddu te jottali nuyu ak cant président de la république si sa jëwriñ di sëriñ Muntaxa Basiru Mbakke ci taxawaayam bu rafet ci sa ginnaaw ak ci réew mi mépp maa ngi sant itam mboole mu njabootu sëriñ Touba cheikh yi ak taalibe yépp di sant bu baax itam c'est tout le président de la république ak son porte-parole muy Serigne Bassirou Abdou comité d'organisation Bimo Andal, àndal ci Magalui, màggal wi ndax Aksen Khalat bu rafet yombal suñu Rensi ren ci màggal bi bëgguma guddal wax bi di sakkuwaat ñaar rek di leen sant di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaw te ngeen ko mu nekkoon la ministre. de l'intérieur Abdoulaye Daouda Diallo résumé li nga xam ne moom moo di discours bi dellu si waat ci ay tomb yu am solo ramat euh, ramat. bokk na ci infrastructure yi nga xam ne président de la république dige woon na ko fi mu jëm ci hôpital bi ñu fa nar a tabax ak dolliwaat ay jumtuwaay ci euh, hôpital yi nga xamante ñoo fi nekk maanaam barabu fajukaay yi kon ñu déglu Serigne Bassirou Mbacke Abdou Khadre porte parole bi mu wax ci turu xalif général des Mourides euh, Serigne Sidi Mokhtar Mbacke. alhamdulilah rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الردوان والتمكين ورضي الله تعالى عن شيخنا وقدوتنا العظيم أحمد بن محمد بن حبيب الله العبد الخديم غدا لا شخط بعده يشمل ذويه من الآل والأتباع والأقرباء أجمعين أصحاب السماحة والفضيلة المشايخ والأئمة والعلماء أصحاب السيادة الوزراء وأعداء الحكومة والبرلمان أصحاب الشعادة السفراء وأعداء السلك الدبلوماسي أصحاب السيادة ممثل الأحساب السياسية والتجمعات المدنية أصحاب السيادة الحضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد فيسعدني أن أمثل بين أيديكم باسم سماحة الخليفة الشيخ سيد المختار مكي حفظه الله تعالى وزاده نصرا وتوفيقا وتمكينا لأوجه إليكم عن إذنه هذه الكلمة التي أفتتحها بتقديم تشكراته الجزيلة وتمنياته الخالصة لكم جميعا أيها الإخوة والأحبة الذين حضروا من كل حب وصوب ومن كل فج عميق ليشعروا معنا فعاليات هذه المناشبة العطرة التي نحيي فيها ذكر الغيبة البحرية لشيخنا أحمد الخديم عليه أكبر رضوان الله الباقي القديم فقد أكدت من جديد هنا بهذا الحضور المشرف على تمسككم الصارم بالعلاقة الطيبة العريقة التي تربطكم بتوبة المحروسة وأبيتم إلا أن تكونوا أمثلة حية مجزدة للأخوة الإسلامية الحقة فجزاكم الله خيرا وشكر مشاعيكم وأجزل المثوبة لكم هذا وإن الموضوع الذي نتناوله اليوم في هذه المناسبة يدور حول التربية الدينية فهو موضوع تدعو الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد إلى ضرورة العودة إليه للتنبيه على دوره الأساسي في تكوين الأجيال وصنع الرجال وتكييفهم مع متطلبات الثوابت الدينية والوطنية للأمة فإن ما يعيش فيه شبابنا اليوم حالة أقل ما يمكن أن يوصف بها هو أنها مأشاوية فقد فقدمها الشباب جل مقومات الإنسان الصالح لينجر وراء مغريات الحياة المادية اللاهية فهو لا يراعي للدين حرمة ولا للأخلاق قيمة ولا للولاية وزنا الأمر الذي انعكس عليه صلبا وجعله كتلة لا تصلح لشيء تلعب بها أهواء المشتغلين وكأنها ورقة يابسة لا تملك من نفسها أمرا هذا ما رآه الشيخ الخليفة حفظه الله تعالى ورحاه الsalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen bokki jullit yi bokki taalibe yi maa ngi yëkkati kàddu ci ndigalul a Seex Sidi Muxtaar xafidahullahu taala wa raa yàlla na ko suñu borom bàyyi lu yàgg lool tam ànd ko wér ba taxawaay bi nga xam ne am na ko ci lislaam am ko ci yoon mbir suñu borom bàyyi ko fi ba lépp ak ci jàmm mu di kàddu kàdduy cant ak i ngërëm ngir xam ne ñëpp dikk nañu ngir wuy si woote Sëriñ Tuubaa bi nga xam ne dafa digle ni ne na ko ci ñëpp sant li yàlla ni ko Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké waxe moom mi nga xam ne mooy jëw jëwriñu sëriñ bi te taxaw ci ginnaawam taxawaay bu rafet boo xam ne benn taxawaay mënu koo rafet kàddu yi mu wax ci kàddu yu soññee ak yi mu wax ni ñu war a jaayanteeg sëriñ bi ak ni ñu war a digloo sëriñ bi ak ni ñu war a topp ci ginnaawam ak ni ñëpp war a laxasaayoo ba yéeneem yi nga xam ne am na ko ci yoon mu tam somb yore yëpp àgg ci jàmm sëriñ bi nee na mi ngi ñaan suñu borom tàbbal ñëpp fii mat moo ne qawlihi taala yaa ayuha allasina amanu stajibu lillahi wa li rasuli isa daakum lima yuxiikum defal nu ci lu kawee suñu jortu ñun ñëpp ginnaaw loolu nag mi ngi yëkkati kàddu yu cant ak ngërëm lu mag jëme ko ci yéen ñi fi yéen kilifa yi fi teewal këri diine yi ak mbootaayu lislaam yi nee na xam na bu baax ne seeni jëf ak seen taxawaay at mu ne ci bis bi day firndeel ak màndargaal xam gu ngeen xam ne bis bi nun ak yéen noo ko bokk kon na ngeen xam ne def ngeen la leen war te nit ngeen dikke ànd kook sëriñ bi sëriñ Tuubaa waxoon na ko ci biir ay mbindam wax ne ginnaaw bu ko yàlla defalee mboolem li mu doon fàgg fàggu ci tukkeem bu réy boobu fës na yéene bu delluwaatee ci suuf suuf boppam dana fa santaat yàlla cant gu méngoo ak li mu ko defal mu wax ne li mu koy sant nag ci biir farasaak suna rek la fas ne amale cant gi tuddaale ne itam am gi mu ami Tuuba ak yaatu gi mu nar yaatu ba saa su agsee féppam ak ñéppam ñooy ànd di ko def ربحت في تجارتي في غربتي وأشكر المكرم عند تربتي نويت شكره بفرد وسن في مسكني توبا وفي دار المنن يشكر ذا الجلال والإكرام إن ساء كلي بالانسلام بينا ولول نك يندل غاسو يفي تيوال نجيتال ريمي ci njiital ministre de l'intérieur abdoulaye daoudou diallo ak mbolam ministre ak député yi ngeen andal ak mbolam chef de service bàyyiwuma kenn sëriñ bi nee na mu ngi leen di yóbbante cant ak ngërëm jëme ko ci président de la république Macky Sall cee taxawaayam bu rafet ci màggal gi ak ci dëkku sëriñ Touba bii di Touba. ndax mboole màggal gi li ñu sàkkoon ci moom lépp def na ko ba ma sëkkoon sëriñ baa koy sant di ko gërëm bu baax mu ngi koy ñaana bu baax tam suñu borom kattanal ko dimbale ko ba yéeneem ci réew mi ak eh, yëpp àgg ci barke sëriñ Touba. di sant bu baax nag mboolem jëwriñam yi mu joxoon ndigal te ñu jëfe ko tàmbalee ko ci seen jëwriñ ba agsi ci yow mi nga xam ne yaa doon taxaw lépp di saytu lépp feeñal feeñal nga ci sëyin ak sa taxawaay mi ngi ñaan bu baax Serigne Touba fay leen. yéen ambassadeur yi ak mboolem membre corps diplomatique yi fi teew yépp sëriñ baa ngi leen di nuyu di leen wax ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fii Touba al mi ngi rafetlu seen teewaay leen ñaanal ndam ci seen mission fii ci réew mi di nuyu bu baax nag mboolem yeneen formation politique yi fi teew ak mboolem kër kuréel yi yëngatu ci biir réew tey defar ak mboolem ku feeñal sa yéene ci màggal gi mi ngi gërëm bu baax mboolem organe de presse yi ak mboolem ñu saytu wér-gi-yaram ba nit ñi mën a am jàmm ginnaaw nuyu ak cant ak ngërëm yooyu mu jiital nag. sëriñ bi nee na mi ngi ñëw ngir dundal na soo xam ne seexul xadim ak mboolem xalifaam yi ko mos a wutu ñoo baax woon di ko jëmale ci bépp jataay te loola moo di fàttali nga ñu daan fàttali jullit yi rawatina taalibe yi li leen indi ci kaw suuf ak leen fi bàyyi muy li aju ci seen diggante ak seen borom ak seen diggante ak seen moroomi jaam yi parce que parce que yéenee jaar itam fa ñu daan jaar ak ci anam ga ñu ko daan defee. te rasulullahi sallallahu alayhi mu ñu daan roy loolu la ko sunu borom digaloon muy wax ak jullit yi ci anam googu te moo di di wane ak digle li baax li su war a nekk ak di ko def ci àdduna bigal nit ñi ci di leen xamal teraangay tey ak àjjana ëllëg di leen tere lépp lu baaxul te doonu lu gën ci ñoom di leen fàtte fàttali xuppe yi ak tëkkoo yi suñu boroom tëkkoo ci ku wàcc ndigal te digal tere képp. moo dox diggante yàlla suñ borom ak jaam yi defal def naa bàyyil bàyyi naa diine chamiana waataana la sëriñ Tuubaa nee woon na ku la ku la mënula diggal nga def mënu laa tere nga bàyyi mënu laa jëriñ mënu sa diggante ak ab safaan daana wax ne bopp ba nar a baax nopp yi day dégg ndigal ndax iblis fu ne jaamoon fa suñu boroom bokkoon na ci ñi gën a jege yàlla waaye gàntu ndigal tax na mu dem ba yées ñëpp ba sunu borom wax ko ne ko fahbit minha famaa yakun laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka mina as-saakhirin mu jàngalaat ñu ne ndigal saa agsee ci yow bul jëfandikoo saxel ndax iblis looloo ko yóbbeli ko dal xalaqtani min neerin wa xalaqtahu min tin yaa ayyuha inna arsalnaaka shaahidan wa mubashiran wa naziran wa daa'iyan ila llahi bi isnihi wa sirajan muniran وبشر المؤمنين بأن لهم دلائل فضلا كبيرا أك وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جات تجري من تحتها الأنهار موي لو خامني نك باخو ولا نيه شي نوب ني دول ني بëgg دégg لودو دëgg سيرين توبا دانا واخني كونوا مع الحق مهما كلفكم الامر نك لين سي دëgg اك لو نين سي مانا جيلي لي جيتو سي كادوي نك مي نكو فاسيري جمالي سي مبولم نيو بوكال دين الاسلام ak ñoom seqal réew mi ak njabootu yoonu murit gi suñu borom dogal tey mu nekk ci kanam li muy jiital ci kàddu yi nag dafa doon lu ko yitteel lool moo tax du sonn du tàyyi waxtu ne mu di ko fàttali loola moo di nu nu war a gën a àndandoo boole sunu bopp nu jullit yépp rawatina ñi nekk ci kanamu mbooloo yi te mooy ñëpp taxaw te sàmm ndono li ñu fi fekke toloor bu bu ci ñëpp maasee te muy dëgg ci ñoom sunu borom ñu dugal ci wallazina amanu wattabaatuhum zurriyatuhum bi imaanin alxaqna naa zurriyatihim ndax inna allaha la yuxayiru maa bi xawmin xatta yuxayiru ma bi anfusihim nee na bokk na ci li ñu dimbale ci loola mooy nu xam ne li ñu boole ñun jullit yëpp nu ànd dëppoo ci ne mooy dëgg gi nu war a topp nu ñëpp war koy dund ak ko dundal fu nu toll moo ëpp fopp yeneen mbir yu ñu am ay woote kon nanu dëgmal li nu boole te bañ a geesu li nu wóotale boobaa nag wa antum laalawna in kuntum muminin kon jenn diine rek la sunu borom nangu muy lislaam inna diina inda allahi lislaam inna haza alqurana yahdi lati hiya aqoom te ñu xam ne jullit nag mooy ko joxe boppam kooku nag waruta amul tànn ci dara lu dul la ko tànnal alxayru fii ma alxayru fii maxtaarahu almuxtaaru laa fi lazi nufuusukum taxtaaru yéen ñi nga xam ne yéen a yëngatu ci wàllu luy defar askan wi mi ngi leen di soññ kenn ku nekk ci yéen mu taxaw di def lu mu man lépp ba lu ñu ko dénk mu def ca la ca war ak lañu yaakaar ci moom ba tax ñu jox ko ko ubbil boppam ñëpp ba ñu mën a yegsi ci moom bañ a xeeb soxlas kenn tey diglu ñëpp. tey moytoo digal loo mënul wala ngay gàntu lu la war te nga mën koo def tërikuwaay rikkuwaay bu leen nangu mukk ku leen bëgg a ger ngir ngeen defal ko loo xam ne bu jaaree ci yoon du ko am ndax gerkat tooke ju bon la te yàlla rëbb na ki koy def te day yàq jikko yi ak pas-pas yi ak tilimal diine yi ki koy def Sëriñ Tuubaa daane firi ne wala tan sa nasibaka mina dunya mu ne lu agsi ci say loxo rek def ca lañ ca war a def ndax àdduna saxul fenn da ngay man tey ëllëg nga tële nee na itam mu ngi soññ nit ñi ci liggéey te ngeen bañ a xeeb benn liggéey bu dagan te ñëpp maase xam ne lii suqali am réew di ko jëme kanam mooy kenn ku nekk gëm ne kenn warul laa jiitu ci liy defar sa réew nga tàmbalee fa nga dëkk ci def lépp loo man ci defar ko ak taxawum ña fa nekk nee na ngi bàyyi mi ngi bàyyi loo xol ñëpp ñuy mootane ko yàq gi ak pour mu bari bi ndax wala tusifu innahu laa yuhibbul musrifin te ku ne ka nga tane ci lu mu doon nga dimbale ko ngir yàlla li yunfiq zu saatin min saatihi wa man qudira alayhi risquhu fal yunfiq ma aatahu llah ginnaaw bu loolu jàllee mu fas yéene wax ak ñi mu sañe digal sañ leen a tere te mooy ñi yaakaar sëñ Tuubaa mu ñu amul lu dul moom nee na mi geesal ak cantam ak ngërëmam ci yéen ñëpp tàmbalee ko ci mboolem kilifa yoon wi ci seen taxawaay bu rafet ci nongul ko ak déggal ko ak jàppale ko ci liggéeyu Serigne Touba bi ko dénk nee na mi ngi ñaan Serigne Touba mi tax ngeen di jëf yàlla na fay leen te moom ñimuwul bor daa am ñimuwul amuk pay te ñaanaloon nag képp koy liggéeyal sunu borom faj say aju waq di xawaaij allasina daamu fii xidmati wa hablahum maaraamu cant gi nag mu ngi koy àggale ba ci mboolem taalib yi ndax bu ngeen gisee mboolem sombam yu mag yi ni mu gaawee lépp seen posté fa tax ak seen taxawaay bu rafet kàddu yi jëmale ci yéen nag moo di ay nit bu ñu bokkee lu ñu mën la séddoo dañu koy xam te rafetal ko te sàmm ko te loolu moo di ni mu tërale yoon wi noose ko ko muy dox ba agsi fii ñu fexe ba di jitanku waxtu wu nekk te la ci jiitu nag mooy digal gu mu digal taalibe bi yépp lu muy def mu tàmbalee ko ci wéetal yàlla sunu borom jox ko li moom lépp te bokk ko kenn boole ca nongul ko ak gàlloo lépp lu mu teg ci ay warteef ginnaaw bu juutalee xam li ko war ci diina moo tax mu wax ne awalu waajibin ala al muridi taxsilu zaadihi min altawxidi wa baax an yaalama ma yusaxihu bihi furud al ayni fi ma saraxu moo tax mu dem ba àgg ci wax ne wa man naakumu an taallumi fa huwa xalifatu l ayni mujrimi képp ku leen di tere xam-xam na ngeen xam ne mooy ki wóotu iblis ci ko suuf te ñëpp maase bàyyi xel ne inni jaailun fil ardi xalifatan ak huwa anshaakum min al ardi wastamarakum ci loolu lay xame ne mission moom nit ki mooy al ibadatu wal xilaafatu wal imaara li tax nga mën a àgg foo nag raaya moo di al hidaayatu gindi ko xam fi mu jëm ak la ko fa yóbbu wasaayil yi nga xam ne ci li jaar di ci sukkandiku ngir àgg ca xaay yi nag ñett la ba ci jiitu mooy xam-xam bu diine ba rek moo ci jiitu ñaareelu wasaayir yi mooy biyaatun saaliha te mooy foo xam ne la ngay dégg ak la ngay gis lépp lu baax lay doon moom la Serigne Touba sànce woon dëkk bi ngir mu nekk rawukaay képp ku bëgg lu baax wa matlaban li taati rahimi wa mahraban min taati rajimi yàlla defal ko jagle ko jagle goo xam ne xamunu feneen fu mu am ndax ba mu sosoo ak léegi téeméeri ak fanweer rek la toll ak fi mu àgg ci réyaay ak dayo ak li fi nekk ci ay daara aki i jàngukaay diine ak li fi nekk ci ay jàkka ak juma néew na fu mu am li ñu fi tere ci ay safaan ak i caaxaan terewuñu ko fenn feneen ci loolu la nekk misaalum atu saaliha ñetteelu wasaayil yi mooy qudwatun xasana roy waay bu mat boo xam ne aw meloom ak jëfam mooy jëmmal teewur yi ak maanaa yi mu boole di saalix di muslix defaru tey defare mooy ab sëriñ bu lay womat ci yoon wi di la woon pakk yi ak ñal yi di yar taalibe bi di ko yéege di ko fóot di ko duy moom la Sëriñ Tuubaa di wax ne walaazimu man laa yazaalu aabida li rabbihi ilaa hudahu qaida Sëriñ Tuubaa wax ne lii tax taalibe gi taalibe gi mat sëkk mooy mu am kilifa gu mat gu mu teg ci kanamam mu di ko teete ak di ko xamal fi mu war a jaar di ko tàggat ak di ko teq toqi ci def lu baax ak bàyyi lu bon وبعده يسلك إنرام الوصول على يدي مكمل يقف الرسول يقوده بالعلم والعبادة كما يربيه بترك العادة لي نك موتاخون mbooloo yi jaayante woon ak moom yépp mu tàllal leen tànnal leen ay njit ak i jëwriñ mu di kilifa yu ñu topp ci seen ginnaaw di diglu seen i ndigal mbooloo la moom ba jur kër yu mag yi seq yoon wi tey kër gu nekk ña ko di sàmm ak wormal baat ak ndigal ka yàlla teg ci seen kanam muy nos ak tërëlin woo xam ne fu yoon wi àgg moo ko fa àggale kon nag mi ngi digal mboolem njaboot gi ñu sàmm loolu bu baax te yar njaboot gi bu baax Sëriñ Tuubaa daana ci soññee bu baax dadaa wax ne ñii leen yàlla booleel ñu topp leen ngir sama jëmm nangeen leen jàngal te yar leen waaye waxuma ñeen dajal leen def leen dagg te wattandiku yàqute jamono ji nga xam ne ñu bari xamutuñu fu ñu jëm toppatuñu ndigal xanaa doon seen kilifa bopp te ku amul kilifa cheytaan nekk sa kilifa wala hiyaasu billahi taala fa kullu man adama cheykhan murshida fa cheykhuhu cheytaanu xaysu qasada lu leen neex wax fu leen neex dem amuñu war ma ci kenn di dugg ci lu seen yu nekkul mu safaanoo lool ak ni almuridu saadix war a mel wa maahu salabu li ixtiyaari li xusni zannihi bila inkaari te nit yaakaaram da ko war a fonk te Sëriñ Tuubaa waxoon na ne yoon wi ñag naa ko ba dara mënu koo bëtt dugg ci biir waaye li koy róor ci biir la juddoo waxoon na sëriñ Masamba ne ko Masamba mu ne ko Mbakke mu ko seytaane de dikki na ci man ne ma fu ne jaar naa la fa mënaluma la dara waaye nag jamono ngi ñëw danaa fexe ba jaxasee lenn nag ci sama mbooloo ak lenn ci sama mbooloo ba kenn la ma tàggale wala yaasu billaahi taala nee na itam mi ngi fàttali ñi nga xam ne ñoo demoon ci tool yi ndax sunu borom kat geesu nañu te rus na sëriñ bi itam ndax bi mu ñaanee digle ñu sàkk sarax li xew ñépp ci teg seen bët te sëriñ Saliou Mbacke daana wax ne yaakaar ju tas miinul yoon kër sëriñ Touba te mooy ñépp maase génn asaka ci ku mu war te ñu xam ne ci ponk yi tax lislaam wér ci la bokk te yàlla lépp lu mu santaane njariñ rekk ci nekk su ruus min amwaalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa tuzakkihim biha nee na itam mi ngi soññ ñëpp ci tool yi ñu xam ne am réew la koy defar la ci jiitu mooy li ngay bay nga di ko dunde te it ñu fàttalikuwaat bu baax ci cosaan ñu xam ne jumaay Tuubaa ji kat fii mu àgg tool yi moo ko fi àggalewoon woon ak toole àllarba yi kon mu ngi soññaat taalibe yu baax ci toole àllarba yi ak daayira Cheikhul Khadim yi nga xam ne waxtu ne dañ koy def di ko ko andi sëriñ bi te lépp mu koy delloo sëriñ Tuubaa te ñëpp gën a góor ci li nga xam ne ci ponk yoon wi la bokk te mooy alxidma mooy liggéey ci sa doole ak joxe ci sa alal ci yoonu yàlla te muy loo xam ne ku ma sa am cër wala wàccuwaay wala dara ci yoonu murit ba tax say mboroom ñee la sa yitte ak sa pëstéef ab sa taxawaay ci loolu di liggéey ak joxe mooy li la ko may te sunu borom xamal nu ci biir alxuraan ne mooy commerce bi ëpp nga ñaay ak bénéfice ci mboolem na waay fii loolu xayri yu nuy def ngir mucc ci lépp lu ñuy ragal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 muy lo xamne du ay lépp du ay gént ñëpp ci tek seen bëtt wala képp ko xamne suñu borom la gumba xol khatama allah ala xulubihim wa ala shamhim wa ala absirihim xishawatun wa lahum azabun azim sëriñ tubaa nak lépp lu mu am ci bisi lo loo ko amee ndax mo wax ne lima yàlla defal te musu ko defal kenn ci ñi jitu won te du ko defal kenn ci ñi nara feñ laata yàlla jox dafa dajale ay soppeem ci azal ba amugul génn lu rëy lu màgg lu kenn mësula gis teg ko ci teg ko ci lu mel ne ak ndañaamu gu muy muy dem ak ñëw kenn mënula xam lu mu doon ngir na mu kawee ak na mu soree mu xamal leen ne lii dama koo jële ci xasaa inul mal kóoti wal jóot bëgg koo jox kenn ci yéen bu martalee ay chartam ba mu leen leeralee sart yi kenn ñim wala wutali jug jug di ko wute ngir na mu jafe ca noona la kenn ca mbooloo ma jug ngir bëgg gu ma bëgg buur bi ak wormaal gi ma xormaal te xam ne bu waxee loolu rek lu ma na am la daal di jug ne ko indi inni ataytuka bihi alal wajhil mardi wa inni alayhi la qawiyyun amin danaa la ko indi ca anam ga nga ko bëgge mën naa ko te wóor naa ca noona buur bi sartante moom deel ko bindal ko ab téere wax ko ab ko ab app ak waxtu wu mu jot ne ko dellul xaar ba booba sëriñ bi nee na ba àpp ba jotee ba ñu indil ma kayit wa laata ma koy ubbi xam naa la cene ne buur ca buure jug fàtte kër yi bàyyi njaboot gi bàyyi njaboot gi soobu ci yoonu géej gi di liggéeyal yàlla lu ma juróom-ñetti at yu yées tuuti ci la ma yàlla waxantee ne ma fi in admamta asran fa min indika boo ko matale fukk ci yow la sëriñ bi nee na falamma qadaa Muusaa al ajala te mooy li waral yoonu gànnaar yoonu gànnaar bi booba la yàlla waxante moom ne ko inni ana allahu rabbul alamin maa yàlla maa lépp may naa la lépp looloo war a sëriñ bi bu mu bàyyi ci tukkeem bu tedd ba dafa yëkkati loxoom yu tedd ya ne dem naa liggéeyal yàlla sunu borom ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam indil naa leen sëri ci boo xam ne lu ngeen fi gisati na ngeen xam ne loxo su tuuti moo ko liggéey yàlla sunu borom dafa am ñaar yoo xam ne moo ko jagoo mu di li mu yor di ko maye ci baaxam ak li mu yor di ko jaay ci njëg ci maandoom li muy maye nag ñëpp ci bokk yam waaye li mu jaay ay gaayam la ko jegleel te lépp lu mu jaay ay nattu la koy jaaye ngir nattu sa tawhid ak sa positif xataa naalamal mujahidina minkum wa sabirin wa lu wa axbaarakum dale ko ci yonent yi ba agsi ci mboolem ñu baax ñi jaar ñëpp Sëriñ Tuubaa bi muy sant yàlla ci li mu ko defal dafa wax ne wa zittani fadlan minka an jaaltani xadimahu wa xalifatahu fi diinihi wa ummati def nga ma ma doon rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di jëwriñam ci kaw suuf looloo waral mu daal di laxasaayu fas yéene am ci boromam ak ci rasulullahi lépp loo xam ne tawxiid dana ko may ak pëstéef ak ngor ak jom ak fit mu fas yéene dékku nattu yi ak lu mu diis diis ak lu mu metti metti te du ko jàmbat mukk du ko mettilu muy natt yoo xam ne ci histoire kenn mësu koo dégg ñu génn ko ci biir dëkkam yi mu sancoon ngir taxawal lislaam génn ko ci biir bokkam génn ko ci biir taalibeem mu ne cundum ci biir noonam ba ñëpp jàpp ne sànku na te saa suñu xëyee guddi ak bëccëg di ko mettital di ko sonal ak di fexe nunu faati bakkanam jële ko fi kenn wettiliwu ko mu yoral boppam bagaasam yu diise amul sax ku ko yoral ay bagaas te mu bàyyi fi mbooloo mu bari ñu attana joxe seen bakkan mu bàyyi fi lépp te te te fi ñu ko jëmee xamul fu mu doon teg ko fa ñaari téeméer nattu ak juróom-ñett fukk am na ci natt yoo xam ne yàlla sunu borom moo ko ko tegal boppam te mooy metteet yi ko sunu borom daan teg ci jëmmam ak xiirtal ay mbindaafam yuy lore ak a màtte ci kawam te muy jaayante du jàmbat te du leen rey ci biir yooyu mu jaayante mat na limu ka ñaar fukk ak juróom-ñett yii du ko def yii du ko jëfandikoo mboolem meññant yamu yamu fa fekkoon te mu neex ci bakkan moo jaayante leen ñu sànni ko ci biir ay gott yu lëndëm léeg-léeg fu mu tàmbalee miin ñu jëlee ko fa yóbbu ko feneen fu gën a métti mu yor boppam ay bagaasam te kenn du ko ci dimbale te du nangu te du ko nangu am na ci xeeti natt yoo xam ne nee na du ko nettali ngir ay teggin diggam ak boromam te lii lépp nag bëgg xeetali mbindee fi rek a moko waral wax na ne lawla alquran wa khidmat rasulillahi wa masalihu alibaadi ma bittu fi dunya leylatan wahida mun sulul won dul woon alquran ak ya rasulillahi ak jëriñ jamu jamu yàlla wat na do fanan ci aduna شيخ mahamadou بشير نيرا ما اوزي احد بمثل ما اوزي به wa azuuhu bi alsinatin wa huwa ala xaqin wa fi qawmihi wa duurihi wa maalihi bi bi misli ma uute bihi fa lam yantaxim walam yastansir maxluuqan walam yashukka ilayhi sëriñ Basiiru nee na mosumaa gis ci kaw suuf koo xam ne doomu aadama yi lor nañ ko ci seeni làmmiñ lor ko ci njabootam ak ci këram ak ci alalam lu mel ne ni ñu lor a sëriñ Tuubaa te mosula fayantoo mosula wuti wàllu mosula jàmbat sëriñ bi wax na ne fi ñu jaar moom ak fi mu jaar ñoom am na ci yoo xam ne ba àdduna di tukki duñu ko nettali moom it du ko nettali mu ko ndax moom képp ci àdduna la ñu mos yóbbu mu dellu siwaat mu ànd ak ndam lu rëy lool nu mu toll rek gàcce ak ñu ko yóbboon toll na ni ngir boole nañu ko gaynde ngir bëgg mu lor ko sunu borom tàggatal ko ko ñu boole ko nag wu rëy ba tey bëgg mu lor ko sunu borom yëkkati ko mu mel ne lu am i laaf sëriñ bi daana ko nettali ci njëriñ di wax di wax ne. na ko de ba fi ne ma ngay naaw àkkagul yeew nañu ko ci garab wut ña dàq tiire fetal ngir bëgg a ba kanam suñu borom ci baaxam yebal waa ahlu badrin ñu dox seen diggante ci barkeb ci mu doon liggéeyal moo tax Sëriñ wax ne yassara lil muna la daa libar wali man qaada ma xaaba on kulli wali lii qaada ahlu badrin usuuda من زهزه الواشي والحسود نجوت من فتن الأعداء اسقسدوا نيب المدافع طرا والشكاكين وهب للوهاب في الثلاثة ما يحجو العصرة والثلاثة dugal nañu ko ci am yar mu rëy te xóot ak sawra sëriñ Abdou Lahad nettali na ko fii sëriñ bi nee na soxna jaar moo jàpp ci ñaari mbagam jënd ko moo tax mu wax ne tukkeem bi bokkoon na ci sunu borom yi ko ci sunu borom dafa judd keem bi mooy rasulullahi sallallahu alayhi wasallam da koy puukareew ci mboolem yonente yi nee itam sunu borom defal ko ci tukki ci tukki ci tukki géej li mu mayoon ci ñi baatub alyamu tënk seeni tur ci yonente yi mu yunus yuusuf muusa mariama hustu mawaahibal kiraami turra la daa taxarubi kafaani charra xëstu nawaalan laa yaraahu kullu man ansartuhum wala ufariqul aman kon war na noo sant yàlla bu baax ba nu yàlla defalee tawféex ba ñu ànd ak moom ndax nee woon na sunu ànd ak moom mi ngi tàmbalee ci yawma alastu bi rabbikum ba nga xamee ne kaanatil arwaaxu junoodun mu janada ma taarafa minha talaf ba rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam tànnee aw xeetam ma tànnaa ci biir tànneefu tànneefam kon taalibi boo ji sekk tànneef la waaye rikk waay na fexe ba mu nekk buuse te nee na bépp taalibe faggul naa la sa xéewaluk àdduna ak alaaxira nafaatani fanfax bi al yaala yaa yaa man xawal amira wal aqyaala naafiu binfax kulla man taallaqa yaa man hadaani bin nabi wa atlaqa nee na bi mu nekkee ci géej gi dadaa sonn lool di faggul taalibe yi xéewal dawal bàyyi dara ba mujj rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam xamal ko ne loo leen di faggul na ci yaxantu bokk ndax mooy xéewalu mujj jamono موتاخ مو وخني وجهل اهل الزرع والتجاره اعانه او يحتوي البشاره دانا فرال دي وخنا بادو نين فوغني سما دما اير متكلي ماي وخ دما كو يمالي سما بوب ديدت كيب كو اديو تي مان تامل نغا تامل نغا ورمل نييب تي دغ كون يال نيو دوغال باني بوكو تي ني مونا ادخلت نفسي وجميع اهلي في جيب افضل وراء ذي الفضل كون لي ني وار موي جوخ كو سونو لب تا بانيو كو جاي موكو bu ñu ko weccoo lenn te moom fàggul na woon teraanga yi àdduna ak ju àllaaxira ju àndul ak coono fàggul na nu àjjana yi ëllëg ju àndul ak xisaab nee na fàggul naa leen loo xam ne buur du leen dàq fu muy dëkk du leen làq lu muy solu te kuy rëbb buur tegg leen kon moom képp moom képp koo xamul li mu doon yàlla sunu ba xam na li mu doon rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam xam na li mu doon ak Cheikh Abdul Xaadir Jilaani gërëm na ko Cheikh Ahmad Tidiane gërëm na ko Abul Xasan Azasali gërëm na ko alxulafaayul arbaa gërëm nañu ko mboolem ñi jege yàlla gërëm nañu ko kon képp ku gërëmul tamu du wàññi ci dara ci dara ci dara jàmm radi anni sibtuhul jeylaani alayhi ridwaanu lasi alaani رضي عني شبته أبو الحسن عليه رضوان يخلد الحسن رضي عني شبته التجاني عليه رضوان مبير الجاني رضي عني الخلفاء الأربعة حشت رضا المقربين المتبعة من لم يكن عني يرضى فالكريم رضي عني رضا ليش يريم نتال بيبحقنا عن أجني أدنى أجني الآخرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرجه مكي xol yi sedd na guy xel yi dal na Cheikh Sidil Maxtaar leen fi yàgg ci wét jël nga ko Rama Boy kon lii di euh, cérémonie officielle bi kon euh, euh, jeex na dégg nga message bi nga xam ne Cheikh Sidi Makhtar Mbacke joxe na ko jëmale ko ci ñi nga xam ne moom moo di jullit ñi ba walbati ko jëmale ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di taalibe yi rawatina taalibe ndige yi murid yi di jëfe li nga xam ne moom moo di ndigal bàyyi tere yi te di tënku ci topp gi nga xam ne moom la ñu war a topp suñu borom sampoon sàmmoonteeg ak lépp loo xam ne lu baax la liñ fi dégg tey am na solo lool Rama Boy. am waxoon léegi maanaam gën a jàppante gën a jàppalante di dimbalante booloo ànd nekk benn te jublu nag ci euh, ci liggéey bi loolu nekk na lu nga xam ne rek euh, lu lu lu am solo la tey nag euh, joxe na fi ay exemple yu bëri yu nga xamante ne vraiment wax dëgg yàlla lii daal mooy na ñëpp daal booloo Cheikh Bamba ànd nekk benn te jublu nag ci ci liggéey bi mu am solo loolu. sëñ Fallou Bousso dégg nga ko wax ji maanaam yaatu na lépp jëm jëm ci jaayante mm. jaayante yeesal jaayante bi jaayante ak sëriñ bi mm. euh, topp ndigle yi ak euh, lépp loo xam ne kon ay ngëneel la ci éducation religieuse ñu ñu ñu tënku ci dëgg la Cheikh Bamba soxna Rama man damaa santaat yàlla bu baax ndax yàlla xam na ne at mu jot damay jël thème boo xam ne ci màggal dama ciy waxtaan ak sama bokki taalibe yi ne ci kër gi démb ma tànnal leen te mu jaayante xaw ma woon ne tey jii ñëwee ci cérémonie bi sëñ Mountakha dana ci dellusiwaat loolu santaat naa ci yàlla bu baax Cheikh Mountakha ñëw ci wax jaayante am solo gi waaye li ci gën a yéeme mooy kan la ñuy jaayanteel mooy ki fi nekkal sëñ Tuubaa dafa ne sëñ bi ñu ngi yeesal suñu jaayante ci yow bi yëpp war a àndaat dee salaat seenu jaayante jaayante nag ci lan la ñuy jaayante li ñuy jaayante mooy jëfe ndigal ak bàyyi tere te mooy li Cheikh Mountakha ñëw wax ci Cheikh Amadou Bachir itam ñëw ëmb ëmb ko ci kàddu yu leer yoo xam ne soo ko digloo bu baax te teewlu ko danga xam ne ku bëgg Cheikhul Khadim lool fonk ko lool gëm ko lool waaye nag